man pare naa pour ñëpp parce que igri laa nekk igri mbër bu nekk fa ku ñëw waaw loolu la ñuy waajal fi mu toll nii. isa daal ni xam ne kii la bu buujoo. ñun pare nañ côté bépp. su bëggee ñu xeex 10 minutes. ñu doog a bëre su bëggee tamit ñu xeex ba pare ñu ne su suñ ko daanee ba ñu def ko mbapat nga xool. lumu paré paré pare nañ ko budé dee ñoko daax budé dàq ñoko daax suñ doom ndey la waaw dañ koy ñaanal ndam ñaanal ko combat bi yalla nako yalla may ndam lu koy njortam ci barke yonent bi waaw du ñaanal ciertam ha Thierno tam ñu ngay ñaanal ciar piol bi ha ah, ñu koy ñaanal moom yalla defal ko jàmm ha ah. alaykum ginaaw ma sant yalla jullu si yonent bi maa ngi sama ñaar waajur maa ngi sama papa bu baax moom mu tol yaaju baax maa ni wa gramine encore wa gramine encore ni wa gramine di nuyu waa parcelle 1 ba 26 waa 18 ak waa 22 ak waa 21. di nuyu képp ku supporter Ndongo fu mu nekk rek kilifa diine yi kilifa aada yi ña seen i laay nekk ñëpp maa ngi di nuyu di jox ko ne waa ci waayam doo Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. maanaam kenn. waaw loolu moom maanaam sant yàlla quoi parce que tey jii amaana combat presque un an nga dugg a préparé yàlla li ñu jàppale di ñu kattanal ba tey ñu naan ay 5 kon sant yàlla. boo gisee ni ñu mel rek xam ne ñii maanaam ñu si forme daal wax dëgg yàlla. sa war a taxaw làmb ji moo war a taxaw promoteur bi seet si ma ñu jubóo si kase mu tëgg combat bi. Mbaye Yékini seeti naa ko mun ne ma diin ya ngeen tase yéen ñaar yow yaa jëlal sa bopp combat bi lan moo tax nga jël combat bi. xam a tey jii làmb la maanaam làmb day boole ku nekk damoon dégg ñu ne làmb du am maas ak dabante la dañoo war a bëri rek combat bi taxaw moo tax ñu war a bëri nii mais waaw ba mooy daan Koulibaly 2 musul daanu Koulibaly 2 mu koy daan mooy daan Koulibaly 2 cinq combats la woon cinq victoire ma jël ko ñëpp ne mënu ma ko daan ma daan ko si 29 secondes lamb tëri lamb tëri di bu ñuy wax maanaam lamb waxul dëgg daal lamb lamb tëri di bu ñuy wax moom booleeg moom mbër la Cheikh Tidiane Niang ya, loolu bu ko waxee waxu mbër la comprendre nga wala caméra yi eh? man duma ñoom ñoom duñ man loolu yàlla moo ko def daa bënta yamalewul ñu muy doomu daanu du ma ñoom ñoom duñu man laa xamal bu ñëwee si bëri dóor bi ma duma ko daan ko bu ñëwee si bëri simple bi ma bëri moom ba jàngal ko bëri si biir bëri man Ndongo bu Grand Mine maa wax lii ah, xeex taxaw samp jaaga xeex non loolu la parce que nee dama bëgg a xeexal Ndongo Lo. bu leen di secret bi gëmu sax muy wax noonu gëmu ko. muy a secret bi. caméra yi ko rek muy wax lu ko neex. mais man moom ñu mu jël bi lii di mbapat de arène la. lii la ko fekk fi leen koy bàyyi journaliste sax lépp lu si def ñoom dañuy dem ñaanu li fii ñëpp am mystique comprendre nga kenn toogul téye sa bopp. sëñ man sama sëriñ sëñ Fallou daan wax naan ku takk dara doo tekki dara te loolu laa gëm ba nii nii nii nii waxu musique ñu jël ko teg ko ne le yàlla fi ne tey jii maanaam dama ñëwaat defaat mu dama defaat faram nam si yàlla si nee nañu dàq senegal Sénégal si laa bokk ma demaat écrit sax xam-xam pour sàq juwaat xam-xam ma dem fa nag mel ku musa mun bëre fekk fa père Birame Ndiaye lamb lok te dafa lambe ma jàngal lu bëri lamb dama tàggataa tamit dama delloo si yàlla nekkul entraînement bi rek lañ sekk de mu dañ gëmloo coloré tout à lañ gëmloo te combat bi nag man si yàlla may ma si di jëm rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Thérèse waaw baa ne Thérèse man dañ maa bett personnel dañ maa bett man. gars yi. baa ne Thérèse. waaw dafa nekk ay xale yi nga xam ne ñu nekk si goxu Grand Médine. ñuy dégg lu nekk ñuy dégg lu nekk. woo ñu kenn amul kenn bu ñu woo lépp ñoo ko seere suñu bopp. añ di seet reer lépp. Lamine nekk jeu de Grand ku nekk di wax ci booy lu ñaaw ku nekk di wax ci booy loo xam ne nekkul yàlla xol lay fay. yàlla xol lay fay ak yéene te nekk ku nekk. war ngaa mun jàng sa bopp ñi ku nekk lu nga yéene war nga ko yéene sa bopp man doomu dëkk bi laa booy la ma yàlla booleel samay morom ne ñoo foondoo encore une fois mag ñi jàppale leen xale ndax xale moo yor réew ëllëg di nuyu ñëpp di sant ñëpp mhm. Père Birame Ndiaye ma sa coono Père Birame Ndiaye ma sa coono sonn gi si combat bi trop trop trop trop te coono gi ma sonn si combat bi yàlla na ko yàlla fay si dimbali Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko te bañu ma ci dara xaaruma ci dara ni ñuy génne dem fu ne maa ngi fay dem tooguma lépp lu ma war ci bis dama koy def xaaruma ci dërëm xaaruma kenn barki seeru xadim ndax dama bëgg mu am dam